yéen kaay gi di réew mi quotidien xëy di ñu xibaar naan ñu giraawaali gu doy gu doy waar a doy waar gu doy waar gu jéggi dayo la ñu àtte ni ki ca tribunalum Dakar journal bi nee na dafa am benn xale bu góora boo xam ne Ousmane Noël Dieng la tudd moom nag day politique Kaolack la dëkk ci mouvance présidentielle la bokk moom Ousmane Noël Dieng mi journal bi nee na da doon tëddee nag ki nga xam ne mooy ab gelam waaye bi muy tëddee gelam gelam bu tudd Mame Ndaka da ko doon filmer moom Ousmane Noël Dieng ginnaaw bi ñu filmer nag loolee nga xamante ni moom lañ doon def vidéo boobee dafa am beneen xale bu jigéen bu tudd Sodo boo xam ne moo si jot moom Soda Gueye ba mu jëlee vidéo yooyu nag da koo envoyé ku ñuy wax Babacar Sow Babacar Sow jël vidéo ya moom tim daal di koy envoyé ministre Diène Farba Sarr daal di koy envoyé tamit Ousmane Noël Dieng mi nga xamante ni maanaam moom moo nekk ci vidéo yi waaye tamit yónnee ko jabaru Ousmane Noël Dieng mbir mi doy na war genn xeetu doy war goo xam ne fu waaye nat daan koy passé waaye nag kan mooy Ousmane Noël Dieng moom day politique ci mouvance présidentielle la bokk waaye nag mooy chef de cabinet ministre Diène Farba ndax Diène Farba Sarr moo yor lépp lu jëm ci wàllum pôle urbain bu Diamniadio mbir mi nag teeree ji na fa mbaxana doonee benn démb lañ ko doon atte ci tribunalum Dakar waaye nag mbir mi li ci doy waar mooy ci weeru koor la ñu nekk moo taxi nag avocat bi nga xam ne mooy maître Amadou Ali Kane daat nay yàq musiba ak mbelengaan ki nga xam ne nag mooy Ousmane Noël Dieng nee na Ousmane Noël Dieng gii nga xam ne def na ko bu doon Arabie Saoudite la nëga ni waxatuñ ko kon rey nañ ko ba yàgg yàgg yàgg nee na ñu tamit Ousmane Noël Dieng mi dafay harcelé nag ñi nga xam ne ay jaboru jàmbur lañ xale bu jigéen bi nga xam ne moo jël vidéo bi daal di koy tas bi ñu ko laajee nag nee na nag da doon fay da doon vancé woon ndax ba muy wut liggéey Ousmane Neel Dieng da ko doon jéem a chantage ne ma nag promotion canapé